dernier combat du drapeau chef de l'État. ma ne ko finaloo yàlla ndeysaan. par équipe Dakar moo ko jël ci kaw Fatick. ma ne ko dernier combat baa ngi noonu Radiakhé Cheikh Diagne Radiakhé jël na ko. Cheikh Diagne boot na ko. Cheikh Diagne boot na ko. daan na ko Cheikh Diagne doon na champion du Sénégal. champion du Sénégal 2024. Cheikh Diagne champion du Sénégal. champion du Sénégal 2024. doomu jaxaaw bi mbarum Issa Sy la baa ngi noonu ndeysaan. mbarum eh, eh. Pape Sarr baa ngi noonu. ma ne ko.